ku ci mel ni Sayyiduna Abubakar ku ci mel na Sayyiduna Omar ku ci mel na Sayyiduna Uthman ku ci mel na Sayyiduna Ali yàlla dimbi na leen waaye léeg-léeg léeg-léeg ñu gëlëm te ñoo sës ci yonent bi bu ko defee sunu boroom moom li mu bëgg rekk la xam xamul lu keneen bëgg li mu bëgg la xam li mu bëgg ci yow it lay santaane pour ñu def ko ñi la ame ame sa jumtuwaay ame sa yaram kenn ku ci nekk li mu soxla ci yow loolu lay santaane moo tax kenn ku nekk dangay ngay wattu sa bopp kenn ku nekk da ngay wattu sa bopp te kenn ku nekkit xam ni yàlla moom rekk moo commandé lépp diggante wax naa ko daaw lim naa ko daaw diggante ruux ak fitra ak nafs ak atifa ak mantiq bu ci nekk service ba mu dépendre bokkul ak bi morom mi dépendre ba moo tax yarkat yi yarkat yi laa wax am nañu liggéey parce que méthode bu leen permettre ñu nekk en contact ak service yooyu mooy yombul te tànk amul xale bi soow rekk nga ci mën waaye mbiram ci loxo yàlla la nekk mat a bàyyi xel la te ngeen ngeen baal ma ak léeg-léeg ci yoonu yar ma wax ci musiba mu day na ñey waaye fekk na boo ko waxulit ah ni yàlla tërale danga koy jàdd yar yombul xale bi dafa dëgg rek xale bi mënul mëne lu ma ko daraak xale bi nangam nangam du yar de boobu du yar ndax bu harmonie amul diggante ruux ak fitra diggante nafs ak atifa mantiq mujj leen bu ci harmonie amul rek xale bi loo ci dajit dafa nekk sa fitna rek dafa nekk sa fitna looloo tax ñuy digle fa ngay tàmbalee soo amee sa soxna mu ëmb dañu bëgg nga nekk doomu bàjjanam ba mooy yeweeku wante diggante bi bul xuloog moom mukk ndax mën na indi njaxas ci juróom yooyu dangay nekk doomu bàjjanam rekk di ko tooñ rekk di ko tooñ rekk di ko tooñ rek booba moo yeweeku léeg-léeg sax nga jël sa loxo raay biir bi ni ko naka gan gi def walla nga jël sa nopp dëpp ci jumbu xam ni ko lu mu wax tey yooyu yépp dafa am lu muy dimbale xale bi bu génnee waaye am na ñoo xam ni defe nañ ni coow rek mooy yar xaleel waaw ah, di soow rek di soow rek ba xale bi mujj la jëppi de bu la jëppee mën a lootu ko dara waaw dama am ca nëga ni daaw benn mbokk bu ñëw ni ma daal sa jigéen ba def ma lëjal nangam nangam xula xula xula xul ba mu neex ko ñoo ma bëgg ci fan yii rekk nga woo ko yedd ko xanaa bala may yeddee xam lu xew ma ni ko baax na naa ko wóolu mu bëgg jóg ma ni ko tee nga toog tuuti ñu may la ndox nga naan sëriñ Seybatoo ko daan def boo ko nuyoo loo yàkkamti yàkkamti mu ne xaaral ñu may la ndox nga naan fekk bi may yónnee ndox mi dama waxale xale bi niko wol wool ma taawam bu jigen ak caatam bu góor ñu wolé dafa mbett sax ani ke xawul won mën nan ndox ma sax jaaxle jabar ji jékki-jékki rek ni jameet ci kawam te am na góor ñu nga xam ni seen jabar rekk lañu ragal yàlla ñu waw kom bi mu gisee jabar ji xamatu lu muy wax xale yi ñëw bokk ci mani leen seen papa dafa tawat seen yaay te seen papa moomul kër ga seen yaay moomul kër ga yenn ñaar ñii yéen moom kër ga ma bëgg yenn ñaar ngeen àtte seen papa ak seen yaay xale bu góor bi ni ma sama papa moo tooñ xale bu jigéen bi ni ma sama yaay moo tooñ ma xam ni buntu dikk na ndax ñoom ñaar ñëpp am nañu conscience ci ni ñoo moom kër gi te lool rek mooy li am solo ma ni kon nag waxtaan leen ci seen biir daldi jóg doxantu tuuti waaye ba ma déggee ñu xaxataay laa xam ne affaire ba réglé na ma dellusi fekk leen ñu mel ni ñu nekk ci kermesse tabarkalla tabarkalla ba léegi dara jibatul nag parce que loolu it yar ko ci xale lu am solo la waaw yar ko ci xale lu am solo la tabarkal la tabarkal bi ci des xawama ko sax ñeme tudd waaye lu am solo la ndax dafa aju ci harmonie بنك ديجنت روح اك فطرة اك ارموني بنك ديجنت نفس اك عاطفة بوكو دفي منطق دي سين انتربريت دما ام نياري سيت يو توتي تاكن بالما دي باسكو واخ بي رافيتو waaye bu bu ko waxul du sotti wante wax bi rafetu ñu doxantu tuuti ki xaw a mag tuuti ni ma maam ma ñu ko si mu ni ma am na ko doxat de wax ko ak benn sérieux dama tiit sax ma ni ko du man de mu nangu ko ak benn sérieux dama tiit sax ma xalaat ni fitraam nafsoom fayewu ko te aatifaam itam nafsoom fayewu ko parce que bu fekkoon nafs bi jot na ci aatifa su ko waxee rekk xaaxataay te su ma ko tontoo it mu xaqataay mais benn sérieux boobu la nekki ba ñu dox tuuti rakk ji nag fitra bi amagul doole ci mantiqam rakk ji parce que mënagul wax waaye moo mujj résoudre problème bi ndax moo nu joxoñ canal ñu dem ba jub canal bi rekk kenn mënul noy mag bi ni ma an ah, kii moo ma xeeñ <laughs> wallaay loolu la yàlla dogal lu ne dama ci daan def woy dama ko daan jéemantu lu ne yàlla xam na ko pour wax la rekk nii yow defal li nga mën mais bàyyil xel yàlla ci sa doom waaw loolu rekk mooy li ci am solo waaye yarantu yii moo xam ya ca lekkool ba la moo xam ya ca kër ga la moo xam ya ca daara ja la yarantu rekk la waaye yar piir ku ko bëgg foog nga associé ci sunu borom mënul ñàkk bari ki ba ci mujj xale yu tuuti gannaaw timis ñu ngi sow sow ndànk rek ma ni mu yéen yéen ñii fu ngeen jóge ñu ni ñu ko jóge Daniel Sorano lu ngeen fa doon wuti dañu doon seeti dernier film bu Michael Jackson ma ni waaw lu ngeen di déeyoo ne ak di ko werante ñu ni juróom-ñeent fukki turi sunu borom yi ak juróom-ñeent lan moo ko téeméeral wax la ni ñàkk yaakaar ci xaleel jaaduwul parce que loolu mag sax du poser question bu grave noonu mag sax du poser <laughs> question bu grave noonu ni ban yàlla moo ko téeméereel man leen roog seen parce que ku nekk ak sa bos waaye turam dëgg-dëgg moom rekk a ko xam yi ci des yëpp melo la melo yi lañuy ñuy tudde tur waaye turam moom moom rekk moo ko xam yonent xamu ko malaaka xamu ko jinne xamu ko jabar xamu ko yàlla rekk a xam na mu tudd ndax boo nee allah la arab yee ko moom nga ni jë tubaab yee ko moom ah nga wax ni nga santale ko seen séeréer see ko moom ba tax na turam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom rekk moo ko xam keneen xamu ko te fit wi dafa dëgër sunu borom fit wi fit wi dafa dëgër ndax xam na nit bu ñàkk dara keneen a koy ñàkk moom waaye moom du ñàkk kenn du ñàkk dara loolu moo tax sunu mbokk catholique yi chrétien yi am na ñaan gu ñuy ñaan ñaan gu am solo mooy bés bu àjjana jeexee safara jeex arash ak kursi yu jeex malaaka amatul jinné amatul nit amatul beneen bi ndef amatul ba wuxdaaniya dellu ci wuxdaaniya yàlla kese moom rekk ak boppam booba lay wooye boppam nag tur mu xam te kenn xam moo tax sunu mbokk chrétien yi di wax ni bu bés booba yal na nga ñu seeyal ci diggante waxdaaniyatul waxdaaniya ñaan la ñaan bu am solo mu mel ni kon bu nu ko woyofalee rekk du baax dëgg la nag li Maodo wax façon bu nekk tagg na ko yonent bi wante nee na ñaari baat rekk laa ci gëm attan ci xeex mooy Abdullahi ko jur ak Amina pour won la ni yi ci des yëpp neexal gàmmu la rekk mais mëtu ko am na koo xam ni màggaayam ak privilège am moo àgg ci boo tuddee papaam dudd yaayam rekk loo ca teg danga sawar waaw Maodo noonu la mel te teewul gis nga li mu wax ci yonent bi kenn xamul nu mu toll waaye li mu ci gëm te gëm ko mooy Abdallahi ko jur ak Amina te doy na doy na sëkk doy na sëkk li ci des yëpp neexal gàmmu rekk la waaw mu rëy mbëtt maag mu dugg féeg nangam nangam ba tey aayul wéttal la waaye li mu wax ku ku dëgër fit la moom itam Maodo ndax léeg-léeg mu wax lu nga xam ni du xam kan ciy tënku ku dëgër fit la waaw moo tax tabarkalla philosophie am daf nu yàq philosophie am moo nu yàq ndax ragalu nu dara dara ci kaw suuf ndax yàlla ak jëmmam philosophie dafa doy waar Sëriñ Aliou nee na dama toog ak moom ñuy waxtaan mu ni gis nga rekk di toog ak nit di waxtaan ak moom mu di la tontu ngeen di yëyandoo guro fekk du moom moom xëy na ca suba voyagé mu nga jëm barsax bëgg fa daje kenn ci saalixiin yi ndax problème bu ñu séq ñoom ñaar bi ma ko waxee mënuma ko laaj na na muy deme te itam gëm naa ko wante awma fu ma teg ngëm gi ndax ci karama rekk laa koy mëna a teg te Maodo gëmul karaama gëmu ko xam na ni lu nekk la mais du ci tabax dundam te man ci karaama rekk laa koy mën a delloo te moom na gëmul karaama walla bu ko gëmee du ca tabax dundam kenn mënul fexe ba mu tabax ci dundam mbiram kenn xamul lan dina di wax ni looloo tax sëñ Babacar si dëgër bopp ndax am na koo xam ni ku mu yar foog nga dëgër bopp waaw yàllaate ma bàyyi waaye at bu jot maa ngi ci di xalaat at bu jot maa ngi ci di xalaat di jaaxle rek nit kii di waxtaan ak yow di lekkandoog yow di naanandoog yow te ci suba la xëy voyager dem barsax pour rencontrer fa ay saalixiin bu bu bu dul karaama duma ko dégg te ki ko wax gëmul karaama ma di ca dem di ca dem ba sog a gis bunt ba ndeke jafe nga demewul noonu formation ba moo jafe ci cadre formation lay doon waaye du doon ci kaadaru karaam te kenn mënu ko weddi ndax Mor Diama mii walla Jean Pierre mii judd ni wee ñu nàmpal di dundal ba mu xëy fer ñu di ko dundal ba mu war dem lekkool ñu yóbbu ko lekkool muy jàng ba commission d'orientation yi jot ci mom ñok mom ba duggal ko ci bir kambu science mu nekk ci ba inventé lo xamni kër go dem tay fekk ko fa te génnul cadre ilma ak mantiq seetal lolu génnul cadre ilma ak mantiq waaw ki nga xam ni nag dañu ko former ci kaadar bu nga xam ni diggante ruux la ak fitra kooku fu fu mu lu mu mënul amul wante du karaama formation rekk la looloo tax nga gis ci ñoom kuy seetaan nu dëjëm di nga gis ci ñoom kuy seetaan dëju boppam tàgge nañ ko ma nga taxaw di xool ñu koy tàgge ah ma nga bër sax déjà ñu ngi koy sang mi nga xool ñu koy sang ñu ngi koy sang mi nga xool ñu koy sang ñu ngi koy ñaanal mi ngi xool ñi koy ñaanal ñu ngi koy suul mi ngi xool ñi koy suul fekk na ma nga moom ma nga bar sax moo tax yëf yi ni ñu ko foogi demewul noonu te barsax nag ay station yu dul jeex la waaw koo soxla bu fekkee sa formation àgg na fa koo soxla mën nañ la wax mën nañ la wax fan la nekk ci ban station seetal loolu waaye ñun façon biñ ko déggee dafa terre bu mu ëpp te boobu doxul moo tax am na nu maam am nañu maam bu ñuy wax maam Cerno mooy jur Alaaji Abdu Kan ca Kawlax Alaaji Abdu Kan daf daan wax ni xawma jëf ju rëy jëf ju yàlla nangu la xam benn xawma jëf ju jëf ju yàlla nangu la mu dellu ci li cheikh waxoon ña ko doon ñaan jaar ci asiraatul mustaqim ولان الاستقامه في هذا الوقت غير ممكن كم نيخ مان nga ko weddi wante cheikh du ko weddi te mom rek mo am solo pour ñun mom xam nako الاستقامه في هذا الوقت غير ممكن كوكو غنا فونك شريعه امول وانت دان وخني ما في الكتب الفقهية إلا الخصومات تكين جنو كفونك شريعة وهي دفع خمني ني تاليف تيري أبو نيكو تاليبي لول دفع يام تجايو نيكو نك فمو ورا يام لن يمالي يونن تبي لمو يفور يب فنيكو ورا يمالي لن يمالي ndax yàllaa ko wax ci alquran yàllaa ko wax ni ko bul dig nit ñi ngëm ndax nekkul ci sa loxo ci sama loxo la nekk man ku ma neex nga gëm ku ma neexul mu wàcc la te feeñal na ko te yàlla feeñal na ko parce que keroog bañ ko xàññee ñépp daw kay jubluwu ci woon lu dul ni leen lii laa leen waxoon pour wax la ni ñoom it ñu ngeeg seeni yëf mu dellu ci li ma doon wax ci Omar ibnul Xataab ni mu bëgge woon jullit bu nekk di dox doxinu yonent bi te loolu mënul nekk xëy na ñi nekkee sportif mën nañu ko ñi nekkul sportif mënuñu ko léeg-léeg nga xam gis ñoo xam ni ñoom dañuy sëriñ sëriñu lu waaw di xaw a sëqët sëqët loo modd sëqat yéeg xëcc laafa ba ci nopp yi dafa ni pour nga gëm leen te fekk ne du noonu moo tax mu daan leen dóor karawaas ba ñu ni ko du noonu bàyyi ko ah parce que yàlla wax na ni ku gëm moo la gëmloo kooku ay karawaas amu ci ci solo ba mujj mu bàyyi ko Seydina Aliyu moom moo jàppoon ni violence verbale mën na ci dara looloo tax fu mu seen groupe bu góor yu taxaw taxawaalu defuñu dara mu yuuxu leen moom violence verbale la ko daan faje mu yuuxu leen yaa ashbah rijal yaa ashbaha rijaal wala rijaal wa yaa ashbaha rabbaati lxijaal di ñaan jigéen ñi pour ñu tekki seen lamit tànk yi takkal ko góor ñu nasax ñi parce que góor gu nasax nag fokk jigéen ñi dindi seen lami tànk yi takkal ko ko moom rekk la mérite mérite wul leneen moo tax Israël mës nañ koo faje seen góor ñi ndax dañu bewoon dañu bewoon bu mu ëpp bew bew xam nga bew bew bu mel ni bi fi xewoon fii ci Sénégal ba tax góor gi Mor Sassoum Diop ni daf koy combattre dem seeti sëñ Babacar wax ko ko ni ko trop c'est trop Sénégal yi dañu bew te booba wax na dëgg parce que booba baxa bu ñu daakaandee xew ak basin bu ñu gome ak dalli double talon yu dóor ba mu ba mu ba mu jeng nga fuddanu boole ca di wogganti ko rekk nag mu ni lii dëppoowul ak lislaam na ci nit ñi génn koo gis rekk ma nga tagal bonekaare la mu ca man def na ko la ca sëriñ Babacar man def na ko ba yu bari wàññeeku ci nee na namm naa Maodo di ko bind ñetti at pour mu may ma audience mu tëma ticc ne ci troisième année ba la may soog a may audience ne ma ni tey daal baxa laa koy solal pour mu kontaan maa nga defar baxa bu ñu dàkkaande nee na ñëw nuyu ko toog ma gis kanam gi sévère ba mu ëpp ne ma di waay kii maa ngi ko namm ñetti at gi gisuma ko ma sañseel ko ñëw mu di ma peer njaayu ne sama xol bi tàng jër ne mu ni tekk ba yàgg mu ni ma ko àndal ma ni ko man rekk ànd mu ni cëy seen jamono kenn kuy dox mel ni mbooloo ne ma xam ni mbubu mee ko neexul ne ma dem rekk summeeku te yooyu yëpp ci yaru diine la bokk yooyu yëpp ci yaru diine la bokk dëgg la nag aada dina bare aada dina bare doole ci réew ba gaañ diine loolu dana am aada laa wax dana bare doole ci réew ba gaañ diine loolu kenn amul ci pexe maa ngi fàttaliku bés góor gi sëñ kër si ñu ñëw di ko ndokkeel waaye sunu yëgoon sax duñu ko ndokkeel ku nekk a ngi sol mbubu basin bu ñu gomee ñu ngi topp ci ñun di taggaate ñu topp mbedd yi ak poussière bi naka la ñoo agsi defe ni dafay kontaan waaye keroog daf nu wax sunu pàqumaam ñun ñëpp ni yéen seen kër maam aada yàq ko ba noppi ngeen di ko yokk aada yàq ko ba noppi ngeen di ko yokk lii lan la ku leen jur ba ñu topp ci yéen di takkaate ngeen nekk ci mbedd mi di sol yëre yu ñu gome ak poussière bi xanaa séexluwu leen keroog lu mënu waxul daf ko fàtte waaye keroog it lanu dénk lu nu war a def fii ba yowmal qiyaama Muniru Saar a ngi toog Mansour Sy ngi toog Saliou Saar a ngi toog Cheikh Tidiane a ngi toog mu profité ci nag li lii ma leen di wax bu ngeen ci génnee bu ma fekkee ci bàmmeel sax danaa ko yëg parce que font baaxul keroog lu nekk wax na ko te dañ ko doon ndokkeel si ndax ci ngénte la jóge te ngénte la doom ba mën lañ ko tudde muy muy taawu Sëriñ Mansour Cheikh Tijani ñu ñëw di ko ci ndokkeel waaye fekk na ca ngénte la sax àdduna yépp ko fekk te boobu kër gi kenn du nuyu sa morom te ñu war a dem ngénte ji seetal loolu te kenn du nuyu sa morom ku ne sa morom ay sa noon soxnaa sukkan wax ni ku demul ca ngénte la dootoo dugg ci kër gi ñetteel loolu moo tax nu forcé dem ba nu demee fekk nañ fa àdduna yépp waaye boo gëmmee doo ni nit a ngi ci kër gi waxuma la wax waaye kenn noyuwul àdduna yépp daje ndar luga Thiès Kaolack fépp ala jéemal sekk dem ba ñëw mooy cam mi ñu soxnaa su sekk bi jur moom sóor si ñépp toog ni parti nis tuuti alaaji mbay ñëw déey ko mu daldi wax ne alhamdulillahi rabbil alamin ndax lii lanu waxante bii nun famille bi ndax lébu dafa sedd ndey loolu lu am solo la ci ñoom waaye ñoom lañu d'accord ca ndakaaru mooy suñu ñëwee kàddu gi dañ ko jox Serigne Cheikh te loolu ci la Alaaji Mansour d'accord kon nag sant yàlla rekk a ci des kon nag Serigne Cheikh koo tudde doom bi rek d'accord nañ ci waaye sëriñ Mansour nag yónni na ma ci yow nee na nga tudde ko sa bopp moo ko ko gënal ndax da ngeen ko wëllërante woon ci kanamu sëñ Babacar si mu ni ma tëyit doo nit buy xatal ku xat yaa xatal sa bopp wante ñun ñi la xam ci sa barke turandoo mësuñu yëg koo xatal mukk ni loolu duma ko nëbb mukk waaw parce que ci façon boobu rekk lay jëfandikoo bu nexé Babacar si baax Astukan bu nexé Astou Kane bu nexé malik bu je m'en fous la baaxul dafa am bés ziar bu rëy am fii ci Tiwaawan ñu waxtaan fa waxtaan wu rëy yàllaate ba mu noppee maag Serigne Mansour ñu taxaw mu ni ma yaa ngi jëm Dakar ma ni ko waaw mu ni ma soo demee na ñaan ndax jigéen ja ca ndar bëgg naa mu ñëw waaye koo xam ni mbokk gor yi kenn mënul tëb tëb laaj la kon nag dañuy ñaan ba ba ko yàlla di yolomal ma ni ko kon su ma demee dakaar def ci ñaan ndax daan naa ko di ñaanal laaj ko yàlla dogal may dem bay dugg Dakar rekk ma ni mujjin lii fokk lii dugg ci ma ni chauffeur bi wëlbati ko mu ni ma fu jëm ma ni ko ndar ñu dem ndar ma jël jigéen ji dugal ci biir oto bi waa kër gi xama ko ximmi loolu sama yoon nekku ci mu ni ma jël sama saat bopp ma ni ko xaju fi mu ni ma sol sama mbubb ma ni ko xaju fi ni chauffeur bi ayca ñu nga wuti Tiwaawan bi bi muy agsi fekk nawaa waa ji génn Sëriñ Mansour ni ma xanaa danga fi fàtte dara ma ne ko fàttewuma fi dara soxna far si la mu bëgg a jëm fii ma ni déet mu bëgg a jëm fii ma ni déet kaay kii këram la ñëw sëy siwu dafa ñëw këram acca ubbil ko bunt bi mu dugg mu ubbil ko bunt bi mu dugg boobu façon moom laa xam xawma beneen façon waaw bu ma fa nekkoon di diisoo naa fa am ñaari weer ndax ñanu fa nekkal ñépp noog ñoo ma bokk bi ci des mooy ñetteelu fanu sëñ Babacar ci suuf ben mbokk wax fa wax bu rafet dal di wax ni Serigne Cheikh moy Sidina ali bu keur gi ñu tàccu ba mu àggalee ma ni ko aw kuy Umar ibnul Xattaab mu ni tekk ba mu yàgg ni mu yéen man li ma wax ku ma ko waxloo loo yaa xam ne waaye fekk na nànd naa la fa mu jëm waaw ndax am na kër goo xam ni bu fa jëm dara la borom tëral rekk moo ci am sol leneen du fa dox yàllaate ma yëg ci moom ne xaw na mer lool waaye mer ma mujj na deñ ndax mer ma def ko bëggoon sësi ca sëriñ Moustapha c'est-à-dire tànn ko muy leaderam te nag comme ku yàlla yeela ci àdduna mu doxal fa doxalin bu am solo ba bés war a ñëw sëriñ Moustapha présidé ko ñu yëgal ko àdduna yépp ma di ko dég ba bés bi des vingt-quatre heures sëriñ Moustapha ni leen ndax yëgal ngeen ko sëriñ Cheikh nga jotuñu fa dem nangam daal di woyofal mu ne ah dem leen seeti ko ñu ñëw seet si ma mu wax ma waxuma waaw yëgal nañ ko àdduna yëpp nangam nangam délégation ba kenn nga ca koo xam ni ku ko gën a gëm sëriñ Babacar amul ku ko gën a gëm sëriñ Moustapha amul ku ko gën a sopp Cheikh Tijani amul ma xool ko ni ko ana sëriñ ba mu ni ma ma nga fa ma ni ko soo demee nga nuyul ma ko ni ko namm naa ko danaa ko seetsi waaye ñi ci des xooluma leen moom rekk laa xool ni ko namm naa ko dana ko seet si waaye wax ko ni ko affaire bi na ko teg ci suuf mu ko def mu ne ah lii lan la xanaa kon àdduna bu tukki la ma ni ko xanaa affaire bi yaa ko moom bopp ma ni ko soo demee ni ko cheikh nee na teg ko ci suuf bu ko def mu dem wax ko ko mu ni ko kon nañu ko teg ci suuf kenn du ko def parce que xam naa ko maa ko yar lu mu wax rekk am na fu mu ko teg noonu lañ ko mujj bàyyi moom it comme amul jikko wolof ci ëllëg sa mu seet si ba ni ma baal ndax xaw ma woon nga baal maax mujj na lu ma yónnee ci Serigne Moustapha ci farata moom laa koy yónni mu dox ko te du ca yàq dara te boo amee woon jikko wolof du ko mën dafay jóge loolu dafay baax ci réew mi mel ni Sénégal waaw اه. أبو الأسود الدؤلي دفى وخ علي بن أبي طالب خمغة سنغور دفى وخني لفرانسي c'est la plus belle langue moom loolu la gëm parce que jàngul arab waaye bu jàngoon arab dina xam ni arab du moroomu français waaw yàlla xam na ko waaye jàngu ko nag daan nañ ci di waxtaan ba sore yàlla xam na ko abul aswadi